bisu àjjuma mu teddaat nekk ci biir weeru koor mu teddaat nekk àjjuma ji mujj ci weer wi nga xam ne dëppoo na ak nit ñu baax ñi ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa eh, bis yépp la daan wormaal ci weeru koor waaye rawatina fukki fan yu mujj yi ci weer wi daan na ci toggoo ay xeetu jaamu yàlla yoo xam ne ku nekk day xam ne am na lu yees soobuwaat beneen soobu bu yees nga xam ne ñu bari ci la ñuy def al i'tikaaf dëkk ci jàkka yi ak jumaa yi ba keroog euh, euh, koor gi di jeex ngir dabuwaale xéewalu laylatul xadr ngir dabuwaale yool ba rekk ñi deful loolu tam di ci def ay xiyaamul layl di ci taxaw guddi gi di ci yokk lañu daan def kon yàlla nañu yàlla fulal jaamu yooyu te làqal ñu ko ni mu ko diggee moo koy fayal boppam kenn du ko fay koor doxalewu fi diggante ak kenn moo ko yoral boppam di ko fayal boppam su suñu yegsee nag ci jamono yi dina am ci njàngalem lislaam loo xam ne eh, di jar na di xoolaat di ko di ko nafar mooy li ñuy tuddee azakaat mooy ahkaamu zakat maanaam attey azaka ndax azaka dafa dugg ci e, li nga xam ne sunu boroom da ko joxe comme ay jumtukaay jumtukaay yoo xam ne boo ko xoolee raaya ba maanaam e, e, dayo ba fu mu jëm mooy day xeex ak ñàkk waaye day saxalal day saxal dimbulante ci sunu biir ñu koy tuddee solidarité maanaam dimbulante ci sunu biir nga xam ne jullit bi dafa war a dimbali moroomu jullitam mbooloo dafa war a dimbali moroomu mbooloom ba nga xam ne kenn du jàmbat ñëpp dañuy man seen bopp loolu mooy objectif mooy hëdafu zakat nit ñi man seen bopp ba kenn ku ci nekk Eh, lu mu soxla mu defal ko boppam ci wàllu dund ci wàllum paj ci wàllu njàng ni ko ñëpp di defe lislaam loolu moo tax mu farataal azaka bokk na ci beneen bi nga xam ne moo tax mu farataal ko mooy day laabal alal ji xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa biha yàlla dafa wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko na nga jël ci alali jullit ñi azaka ndax day laabal dégg nga seen jëmm yi laabal jëmmi alal ji wa tuzakkihim biha eh, mooy daf leen di tazkiya tazkiya mooy awoka maanaam alal ji boo koy joxee bu yowmal xiyaamee day doon awoka sa diggante ak sa boroom loolu mooy tazkiya wala tuzakku anfusakum balillah yuzakki man yasha nit du fóot boppam yàlla mooy fóot moo tax mu ne alal boo ko joxee Eh, dina la sellal waaye dina la laabal ni mu la koy defee ci sa jëmm noonu la koy defee ci alal ji kon azaka mooy lan azaka mooy benn kem la boo xam ne yàlla sunu boroom daf koo waral ñu war koo génne eh, ci sunu biir alal natt ko eh, génne ko te bu boobaa moomatuñ ko ñi yàlla lim ci alxuraanul karim ne mooy ñi nga xam ne dañoo ñàkk mooy fuqara masaakiin yi al muallafati xuluubuhum ñi nga xam ne dañoo bëgg a miinal seen xol lislaam wal aamilina aleyha ñi ciy liggéey koo xam ba jaam di am maanaam njotam boo ko ko mu jot boppam kooku ku jëre jox azaka la am ba amatul tamit am na ñoo ci wàllum bor yàlla lim na ko ci aaya bi waaye da ciy duggaale koo xam ne fa mu ne bor moo ko fa bàyyi ak ñàkk man kooku tamit kuñ mën a jox azaka la noonu la ko limee ci aaya bi juróom-ñetti nit ñi nga xam ne dañ leen di jox azaka ñooñu ñi ngi ci alxuraan azaka jooju nag buñ ko génnee eh, dañ koy jël jox ko woy ñàkk bi natt ko ba mu mat donte donte donte dërëm da nga ko cee jël mën naa yàq barkeb alal ji te dafa mel ni aalam al islaami àdduna bi monde islamique bu ñu jëfande woon ndigalu yàlla lool yi ci wàllu azaka dina néew nga gis ku ñàkk dina néew nga gis kuy jàmbat waaye boo gisee jàmbat bari ñàkk bari dafa fekk ne ni ñu war a jëfandikoo azaka dëgg dëgg dëgg dafa des levier bi levier bu solidarité la maanaam jumtukaayu yu dimbalante la loolu dafa war a dafa war a leer si bopp jullit ñi nga xam ne ñooy joxe azaka te buñ koy joxee ñu joxe ko joxin bu am solo boo xam ne nit ki dana ko mën a jariñoo donte da ngay gis koo xam ne dafa yor métier waaye dafa soxla jumtukaay nga nga jëndal ko jumtukaay bu ëllëgee du laaj azaka di joxe azaka loolu loolu baax na bokkul ak nga jël azaka ju bari lem ko ay ñeenti téeméer walla ay junni di ko joxe ki nga koy jox léeg-léeg mu jariñ ko léeg-léeg du ko jariñ li lislaam bëgg daal mooy boo ko joxee nit ki mu war a génn ci rangu ñu ñàkk ñi dem ci rangu ñu am ñi loolu ñuy joxe azaka nañ ko bàyyi xel bu baax a baax euh, atteem nag ci lislaam moom ponk la ponk mooy comme lii ñuy def muy julli nit ki bu seedee ne yàlla buur la te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la yónni ci nit ñi kooku wàllu pas-pas la kooku dugg na ci lislaam bu ko nit ki seedee rek donte ci xolam la dugg na ci lislaam waaye nag bu ko waxee mooy tax jullit ñi mën a jëflante ak moom loolu la ñuy tuddee charte taamuli maanaam nga jekki-jekki yëkkati sa loxo daan ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boo ko waxee day tax jullit bi nga dennal xam ne yow bokk nga ci lim bi muy jëflante ak yow jëflantewu wu jullit soo ko waxul tee ko ci sa xol xol bi dugg na ci lislaam waaye say moroom duñu xam ne bokk nga ci diine ji moo tax boroom xam-xam yu bari dañoo dëpp ne wax ji munta ñàkk ndax charte taamuli la ndax ki munta wax xiyaas ko am na koo xam ne yàlla da koo bind xëy na munta wax am koo xam ne munta dégg ñooñu seen ñàkk wax googu mënu leen a xañ dugg ci lislaam ndax xol ba mooy dugg ci lislaam bu ñu defee ay junju junj yi mooy wuutu seeni wax buñ bindee seeni bind mooy wuti seeni wax kon ab xol mooy dugg ci lislaam moo tax nit ki ñu koy jàngal saa su ne muy tajdid imaanam muy beesal ngëmam ndax al imaanu yazidu wa yanqus day dolleeku ci jëf yu baax waaye day wàññeeku ci jëf ay safaan ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne nit ki jamono ji muy def lu bon jamono jooju du jullit jamono ja ndax bu fekkoon ne teew na xuduur li ñuy tudde al xuduurul islaami mi ngi ci xolam du cëri yi tax duñ mën a def lu bon kon foofa am na lu faay ci wàllu pas-pas moo tax ñuy bëgg nit ki fu mu toll di beesal pas-pasam di toog di ko xalaat di ko càmbar digganteem ak boroomam fu mu tolloon ak fu mu toll tey loolu wàllu pas-pas la bu pas-pas weesoo nag yàlla daal di dugal cër yi ndax cër yi bu ñu leen defalee yar am lu ñu leen defal euh, si yar ci wàllum julli nga xam ne dafa boole teewlu boole yëngutu yaram wàllu koor ci tarbiya nit ki ci wàllu xiif ak xiif ni mu amee solo ci dundu doomu aadama tarbiya ko ci wàllu congrès bu mag a mag boo xam ne ku ko man da fay dem ku fa demul tam da ko dégg wala da nga ko gis muy aj màkka ci wàllu tam azaka nit ñu di dimbalante loolu mooy jëf yi yi nga xam ne ñooy mottali pas-pas ndax nit ki bu fekkee ne dafa ne am naa pas-pas waaye du dimbali moroomam am naa pas-pas waaye du may yëngal sama yaram ngir ngir yàlla am naa pas-pas am naa alal waaye jaraluma dem fa ñëppi daje dañuy wax ne ah kon pas-pas bi dafa am lu manqué ndax lislaam juz'un laa yatajaza'u xaaj la boo xam ne duñ ko def ay pàcc doo jël li la neex bàyyi li ci des danga koy jëlandoo benn yoon ngir mu tudd lislaam waaye nag jëlandoo boobu bunt ba mooy li ñuy tuddee al i'tiqaad mooy pas-pas bu ngeen xoolee Cheikh Ahmad Bamba bind na ci téere bu am solo ñu koy tuddee Mawaahibul Xudduus téere la boo xam ne téere tawxiid la day jàngal nit ki lan mooy pas-pas li ëpp ci tawxiid boobu sax tawxiid irfaan yi lañ koy wax maanaam tawxiid bu làq tasawuf ndax tawxiid dafa yomb rek nit ki ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah te du jëf lu ko nuru motax tax bindé téré bobu mune nak dafa am luñ ciy dolli ñukoy tudde selal selal moy at tawhid al irfani wax baadi rek koku tawhid kalami la a tawxidul kalami mo lay jàngal ne yàlla kenn la nga ne waw yàlla ku fi yag la nga ne waw waaw nuroowut ak nit ñi nga ne waw soxla wul kenn nga ne waw lolu ay baat la likoy jëmmal moy al irfan lolu moy tasawuf motax lolu nit ki da ko wara chamber dégg nga bu baax a baax ndax lu am solo la ci biir li koy jëmmal nag ci lañ dugal azaka mooy nit ki nay génne ci alalam as lëf dégg nga bu charte yi matee di ko jox ñu ñàkk ñi ndax mooy tax mu nekk dëgg-dëggi jullit ndax su ko deful moom dafay xaaj lislaam te lislaam mbir la moo xam ne wërngël këpp la nanguwul xaajoo moo tax boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne ku bàyyi yi génne azaka te weddi ko daan ne azaka amul kooku génn na si lislaam dafa murtad chartu ku ku weddi julli moo koy dal ki bàyyi julli te weddiwul julli kooku murtadul dafa moy ki bàyyi azaka te weddiwul azaka murtadul dafa moy murtad mooy génn ci lislaam waaye ki neen nag loolu amul solo amul benn sens may dajale sama xaalis mu doon ay million ma koy takk di ko jox julli loolu amul fenn bu ko weddee rek day génn si lislaam kooku yustataabu bu fekkee ne dañuy lislaam dañ koy tuubloo ñetti fan dégg nga mu war a tuub su tuubul lislaam day dal ci kawam loolu tamit lu jar a xam la ci nit ñi nga xam ne taxawuñ ci azaka niñ ci war a taxawee tamit euh, atte boobu bu weesoo doon ponk azaka dafa am ay ngëneel yu bari mooy ngëneel yi day jegeel nit ki boroomam ndax alal dafa takk ci xol te yàlla day tarbiya xol nit ki fekk xol bi setagul gul nit deugantan motax yàlla sax yawmal khiyam dafa ne ku am alal ju bari ak dom yu bari duma ko duma xol lolu damay dugg ci sa xol xol ko num def yawma la yanfau malun wala banun illa man ata allah bi xalbin salim ku ñëw ci man ëndalé xol bu set dina xol say mbir bu wul xol bu set nak duñ jëflante ndax la nga doon def newul ca pas-pas ba ndax pas-pas bi bu ci nekkee rek mooy baatu seede yooyu nga waxoon rek faw xol bi day rafet loo yéene sa bopp yéene ko ñi ci des dégg nga looy defal sa bopp defal ko ñi ci des soo ko mënee loolu mooy pas-pasu dëggantaan waaye jullit du wax ne man mucc naa ñi ci des lu ñu def baax na loolu jullit du ko def ci wàllu azaka tamit noonu la demee moo tax yàlla dafa wax si ci alquran aaya bi nga xam ne firi na azaka dafa ne xad aflaha almuminuun alladina hum fi salaatihim xaashicuun walladina hum an illahwi muriduun walladina hum lizzakaati faaciluun ñi nga xam ne ay jullit lañ ñoom texe nañ daal di indi nag ay critères daal di ne ñii lay ñii lay wax ñi texe mooy ñan mooy ki nga xam ne day julli di ko def ci ragal yàlla ak toroxlu bu rombee am fo da koy dëdd yoonam newu ci day joxe azaka lépp bi ko pas-pas lalee lépp bi ko pas-pas lalee mu ne kooku yàlla nee na xada aflax kooku texe na léegi moo tax azaka li koy firndeel ci lislaam bari ci biir alquran ñu gis ne tam am na beneen aaya buy wax ne inna alladina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaa ñi nga xam ne dañuy jàng alquran tilaawatul quran di taxawal julli wa anfaqu mimma radaqnaahum li ñu leen wërsëgal ñu koy nangoo bokk sirran wa alaaniyatan di ko def ci secret ci suuf kenn du yëg léeg-léeg bu ñu gisee ne bu ñu ko defee si kaw am ñu ko jëriñoo toppandoo leen wa alaaniyatan ñu def ko ci kaw loolu wàññiwul dara yàlla mu ne yarjuuna tijaaratan lan tabuura ñooñu de fi ñu dugal seen commerce bi du perte ndax danañ am bénéfice yarjuuna tijaaratan لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضل انه غفور شكور يلا بروم يرمان لكم من جيغل لا لول جيل نانتم سي حديث يبري ني وخ يونت بي صلى الله عليه وسلم دافني الصلاه نور والصدقه برهان جولي داي ديف لير سي دومو ادمه waye sarax day def lay aw lay la yowmal xiyaam sa diggante ak yàlla fonk ko lool ndax dafa sax ci xol doomu aadama bu koy joxe te gëmu ko du ko mën a def bu ko gëmul du ko mën a def loolu moo tax boo gisee ñu laltaay yooyu jamono jii ñu toll nii dafa doon jamono koor am ñu bari ñoo xam ne dañu ciy faral di génne azaka mooy nga am alal bu mat nisaab nisaab mooy nga am kem buy tax ne lislaam ne yow am nga alal boroom xam-xam yi ñoom ñoo xam niñ koy natte di ko natt ca diinaar bu njëkk ba wala ñu koy natt ci misqaalu zahab dégg nga ishruuna diinaaran la ñuy wax ñaar fukki diinaar di wax mi mi'ata dirham ñaari téeméeri dërëm ci yooyu yu njëkk ya buñ ko méngalee ak léegi nii ñu bari def ijtihaad daal nit ki daal bu amee lu tollook euh, masalan juróom-ñett fukki garaamu or ak juróom Euh, mu dem laaj li garaam di jar ñu ne ko nangam lay jar mu ful ko ci juróom-ñett fukk yooyu ak juróom euh, dégg nga am na nisaab war naa mën a génne azaka masala ñu ne la garaamu or vingt mille lay jar nga jël vingt mille daal koy ful multiplier ko si quatre-vingt-cinq mu jox la benn somme ñu ne ah somme bii bu fekkee ne mat na at bi nga ko yoree ak léegi mat na at te wàññeekuwul yéesu yéesul nisaab ba kooku war nga cee mën a joxe azaka ba pare nga moom ko te doonut ay bor ci yow war nga cee mën a joxe azak yooyu yëpp am na ay charte yoo xam ne bu ku si bëgg a yaatal boo demee fa nga dëkk ca imam ba ak boroom xam-xam ya soo leen laajee dinañ la ko leeral ba ba mu leer waaye ci jamono yi nga toll yi ñu toll nga xam ne jamono yi dafa am lu xew ci dëkk bi muy natt boo xam ne suñ boroom moo ko teg te nattu moom nattu la am na ñoo xam ne sax dañoo gis ne nattu bu baax la ndax delloosi na lu bari ci ay waleeru lislaam yu bari yoo xam ne lislaam daan na ko tere wala muy wax nit ñi ñu koy def xëy na fonk ñu ko niñ ko war a fonke ndax gisuñu woon njariñ li dëggantaan e, jàpp jàpp juróomi yoon jàpp juróomi yoon ci bis yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy jàngale julli dane woon yéen ku amoon dex ci buntu këram e, bis bu ne mu sangu ci juróomi yoon ndax yaram wi dana des tër ab tër ñu ne ko déedéet mu ne noonu la julli mel te xam nga julli dafa taxoo ak njàpp kon bu ñuy wax nee raxas leen loxo yi de leen set lislaam ba mu ko waxee junni at ak nàngam la waaye dafa dañ ko war a xam war a xam li muy jariñ ak euh, euh, euh, lan lañ ci mën a jariñoo ñu koy jàngat fu ñu toll kon jamono yii jamono yi dimbalante la jamono yëpp ci lislaam jamono dimbalante la moo tax lislaam faratal azaka faratal li ñuy tudde alhibatu mooy maye faratal sadaqatu tatawwu saraxe ci coobare faratal hadiya ah bu ngeen dee joxante hadiya da ngeen soppante ci seen biir yii yëpp ay jumtukaay la yoo xam ne boo joxe woon sa azaka ba sa ba noppi sax yow mu leer na ne dese nga lu bari jëlaatal leen dolli parce que islam ubbi na la bunt boobu loolu yëpp war nañ koo mën a jëriñoo ci jamono yi ñu toll nga xam ne nit ñi dañoo soxla ndimbal ndax ñu bari jàngoro ji xew euh, xañ na leen seeni liggéey ba mënatuñ koo def nañ ko waroon a defee ñenn ñi nga xam ne ñi ngi liggéey tam lañ daan am mënatuñ koo am loolu lépp nag ñi nga xam ne yàlla sunu borom dimbali na leen war nañoo gestu ñooñu ndax amul jaamu yàlla gu ko gën a màgg julli wo baax na woor baax na lépp baax na waaye joxe wa aatal maala ala xubbihi joxe alal te bi nga koy joxe sax yow bëgg nga ko loolu lu am solo la loo xam ne fi mu la mën a féete amul benn jaamu yàlla bu ni mel kon azaka jaamu yàlla la ci wàllu alal jaamu yàlla la ci day setal yaram da koy laabal day setal ruux jaamu yàlla la day ñoŋal alal dégg nga ci yàqu ndax bari na ay ahadis yoo xam ne ñàkk joxe azaka mën naa ñàkk a wàcce barke ci alal jooju nga xam ne nit ki da koy wut ba am ko tolof tolof di ci tàbbi lu ne di ci dem nga xam ne kenn du wax ne nag fu tolof-tolof amee ci alal lool la waaye léeg-léeg ñu méngoo ñoom ñaar azakatam dafa am fonction sociale dafa am lu ñu tudde azakat wazifatun ijtimaia dafa am liggéey bu muy def ci wàllu société li muy def mooy day aar société bi ci li ñuy tudde toroxtànge day aar société bi ci ak suufe kenn ku ci nekk am ndoxum bëtam mën a dox soxlaam ci sutura te kenn du ko xamal dara te loolu lu am solo la allahu fi awni alabd abd dama alabd abdu fi awni axi ndimbal la lu bari nit ki yàlla da koy taxawu saa su ne feeg moom mi ngi taxawu ay moroomu doomu aadamaam kon déggiinu azaka si lislaam daal mën naa def lu bari ci xeet wi su fekkee ne jëf nañ ko doxale ko niñ ko war a doxale ndax day fekk ku xiif mu jox ko mu lekk day fekk ku doon laaj mu toogloo ko këram day fekk kuñ xañ mu woomalal ko day fekk ku doon jàmbat ak ñàkk mu fexe ba dootul ñàkk yooyu noonu nañ ko bàyyi xel lu baree bari ñi nga xam ne nag war na leen mooy ñi nga xam ne ay jullit lañ loolu moom taxsilul xaasil la loolu ñëpp di xam la waaye azaka ki koy def jullit lay doon keneen ku ko def te du jullit koku mom jëf ju bax la yàlla ko mandu la wama rabbuka bizallami lil abid jëf sax mom yàlla neena dañ koy jitalal ñi ci def lu bax te duñ julit dana len ko jitalal ay fay ndax yàlla dafa mandu waye julit mo koy def ngir am yoolu azak khalis bi day mat at day mat nisab denga nonu la ba mu dess atakay mbay mom nit ki du ci xaar at wa atu haqqahu yawma hasadi bu fekkee baykat la bis bi mu góobee rek day génne azaka wa laysa fi ma duuna xamsati awsuq sadaqa bu fekkee ne lim bay matul juróomi awsuq awsuq ci nattukaay yi ñenn ñi ci mazhabu imam malik daanaka juróom fukki kilo ñu bari moom lañu wax gis naa ci mazhabu xaniif ak ñeneen ñuy wax juróom ñaar fukki kilo waaye loolu bu ko fulee ba mu mat ñaari téeméeri kilo ak juróom fukk rek kooku war na cee mën a génne azaka bu fekkee loo xam ne yàlla moo ko taw mu am ko ci bu nattee juróom-ñeent ba ko fukkeel mooy azaka ji bu fekkee ne moo ko rooseel boppam bu fukkeel boobu mu xaaj ko ci digg bi mooy azaka ji ndax li mu yor sell loolu mooy li nga xam ne moom lañu ñu war a def ci wàllu mbay naka noonu mënees naa génne azaka ci affaire mine xam nga léegi ay mine mi ngi xew ñu koy wax ci Sénégal ay pétrole ak mine daal mine loolu buñ ko génnee sax mën naa jëriñ lu bari dégg ci lu ñu loo xam ne jëmmu asaka jooju moo koy taxawee ci ci ci dépense ku yor xale bu ndaw tam boo xam ne masalan dafa doonu alal nga yor ko alal ja day génne azaka ndax alal ji toppul azaka toppul nit ki alal ji la topp même boo yoroon koo xam ne xelam dafa wàññeeku ci sa biir kër waaye am na alal joo xam ne moom la topp moo ko moom alal ji day génne azaka motax tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xeetu alal yoyu buñ ko bàyyi muy teud asaka ji da koy jeexal bu yagge kiko yor nako topoto bañ ci mën yahantu ndax asaka di ci génn ba pare capital bi di fi dess bay ko sax lolou tam lu jara a bàyyi xel la si liñ wara def mu mu ne ittajiru fi malil yatama li alla taakula ha zakat na ngeen di commerce ci alal joju ngir asaka ji bañ ko jéxal xaaj yi mu am mooy kon xaaj yooyu nga xam ne wax nañ ko léegi am na lu ñuy tuddee zakatu rikaz mooy ay euh, mel ni ku foroon mbàndu euh, or wala dara ci nit ñu njëkk ña fañ dëkkoon nekkatuñ fa ba mu yàgg kenn kenn kenn déclareetu ko nga jékki-jékki mu génn sa kër wala nga for ko loolu am na nu ñu koy génnee azaka ci wàllu xumus dégg nga yooyu yëpp euh, da ngeen di dem ci borom xam-xam yi ndax jotaay bii du ko mën a teqale ba mu leer waaye li ñu am solo fii tey mooy nit ñi nañu bàyyi xel azaka ak njëriñ li nga xam ne da koy def ci biir société rawatina bu société bi nekkee ci ay ay coono ak i tolof tolof yu mel nii ñu wax ne euh, bu loolu weesoo am na lu ñuy tuddee azakay muurum koor te yi muurum koor ci jamono yi war nañ ko waxtaane jamono yi war nañ ko waxtaane ndax asakay muurum koor moom tam sunna am na ñoo xam ne sax si ci alquran dañu ne xada aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla asakay muurum koor moo ko taxa wàcc asakay muurum koor moo tax aaya boobu wàcc te yonente bi salaa def na ko saxaaba yi def nañ ko ñoom niñ ko daan defee mooy dañ ko daan dafa doon lu war njëkk nit ki julli ji waaye ci ijtihaadul ulama boroom xam-xam yu bari ci seen jihaad te seen wuute boobu mën naa doon yërmande ñu ne dagan na dagan na nit ki joxe ko ñaari fan walla benn fan njëkk ñuy julli ji korite ngir jot objectif ba mooy lan nit ki bis boobu du du dem di laaj kenn dara day mën boppam jënd lim soxla toppatoo ay doomam ak njabootam toog këram def li ñëpp di def waaye waruñu ko seetaan muy dem di tàllal ci bis boo xam ne bisu feet la ci lislaam kon euh, xaaj bu njëkk bi dafa jot ñu taxawandi foofu incha allah ba ñu nodd ba pare ñu ñëwaat الأرض Allah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 fi ñu yemoon ñu ngi duggoon ci azakay murum koor lépp nag mu bokk ci jumtukaay yi lislaam yi nga xam ne dimbalante ak xeex ñàkk moo ko waral ñu ne azakay muurum koor farata la farata la joo xam ne bu ñu demee ci alxuraan dañ ciy sukkandikoo ci waxi boroom xam-xam yi ñu ne bismillahi rahmaani rahim qad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla aaya boobu saxaaba yu mag dañoo wax ne ubay bun kaab abdullah ibnu abbas ñu ne azakay muurum koor moo tax aaya boobu wàcc te bu ñu xoolee ci jëfi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ne daan na ko def saxaabayrul kiram tam daan nañ ko def kon loolu sax na ci diine e, ban xereñ moo ne ci ginnaaw di ko def ñu ne day laabal aji woor ji ndax léeg-léeg nit ki ni mu néewee doole yàlla di wax wa xuliqal insaanu daifan tawat ji am dañ ko si yëg aaya boobu nit dafa néew doole néew doole googu nag dafa tax ñu bari ci doomu aadama yi duñu mën matal seeni jëf ba mu mat li ñu war a moytu tam duñ ko matal ba mu mat day am yu leen di rëcc moo tax rëcc-rëcc yooyu nga xam ne teyuñu ko di ko def ñu ne nit ki bu joxee azakay muurum koor azaka jooju day laabal koor gi e, dimbali ko wuutu ko ci jëf yooyu nga xam ne moom la doon def ay mbóorent walla ay jëf yoo xam ne daf ko rëcc ci biir weeru koor bi loolu mooy benn ma bu njëkk bi Eh, nga xam ne xereñ lañ koy tuddee ñaareel bi mooy azakay muurum koor day tax aji ñàkk ji du wër ci kër yi di tàllal loxo bi su feet ñaar yooyu rek doy na sëkk ngir wax ne eh, kon azaka ji farata la kan moo ko war a def jullit bu doon gor ba noppi am lu mën a génne am lu mën a génne ndax lislaam laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha yàlla du teg nit loo xam ne joxu ko ko du teg nit loo xam ne tam munu ko waaye foofu nag si asakay muurum ko teengal nañ ko ba nga xam ne dañ ne nit ki donte faqir la bu ko ñu bari joxee sax moom na génnewaat joxe seet ku mu tane mu jox ko kon noonu la mbir mi demee ki ko war a joxe da koy joxeel boppam joxeel ko njabootam mel ni soxnaam ak doomam ak ñi nga xam ne moo leen yilif ci biir këram nga xam ne seen dund ci kawam la tege ñoo ñëpp moo leen koy nattal génneel leen ko waxtu wiñ ko war a génne mooy fajaru bisu ayit loolu mooy warteefi ndax noonu la yonent bi daan def saxaabatul kiraam loolu lañ daan def waaye góorgóorlu yi boroom xam-xam yi ni ma ko waxee léegi moo indi ngir gën a jam li ko tax a jóg ci jamono yii ñu ne mënees na koo génne benn walla ñaari fan njëkk ñuy ñuy ñuy ñuy def korite gi bu ko defee nit ki day mën a waajal boppam bu waree dem ca marché ba jënd yére mu xam ko su waree jënd dund mu xam ko su waree jënd ndawal lu mu bëgg jënd rek mu mu mu jënd ko kem bi nag li nga xam ne noonu la war a toll dañu ne saa saa mooy nattuwaay la boo xam ne nit ku diggu doomu moo koy natt ci ay loxoom bu ci nattee ñeenti mudd ñeenti mudd boobu day tolloog saa léeg-léeg danga gis ci e, marché yi wala bu waxtu yu tollee fii am ñu koy jaay di ko wecc ko waaye bu loolu amul tamit am na ñu ci góorlu ba gam-gamle ko ci ñaari kilo wala ñaari kilo yu yées tuuti waaye e, ginnaaw yées tuuti lañuy wax def li gën a mat rek nga xam ne day ëmbaale lépp day baax loolu ñu bari ci boroom xam-xam yi wax nañ ko ñu ne tam dagan na nit ki génne ko ci xaalis loolu tam ijtihaadul ulama la ndax bu njëkk ba yonente bi da ko daan génne ci li not ci dund foofa ñoom tàndarma ak dugub ji ñu tudde sha'ir moo ëppoon ci ñoom te booba moom lañuy ñuy dunde ñoom moom la ñuy dundee tàndarma dañ ciy defar ay cereeg lu ne moom lañuy dunde booba loolu lañ daan génne waaye boo jógee foofu lislaam yaatu ba génn foofa dañuy xiyaas natt ci loolu ne kenn ku nekk fa nga ne la fa gën a not ci dund mën nga ko cee natt génne ko li nga xam ne moom ngay jëfandikoo bu boobaa loola boo ko defee xaalis dana baax ndax xaalis bi dañoo gis ne bu ñëpp jëlee azaka ji masalan comme Sénégal ceeb moo ëpp ñëpp jël ceeb jox ko euh, woy ñàkk bi ki ñàkk day mujj jël ceeb bi di dem ca bitig ba di ko jaay mën naa am sax ñu damm njëg gi wala dootu ko jëriñoo ni mu ko war a jariñoo ginnaaw loolu lay def bu buñ ko joxee xaalis bi mu jënd lim soxla ci ceeb jënd lim soxla ci leneen dese weccet def ci poosam ñu ne kooku kat ware war naa mën a nekk te xam nga lislaam euh, lu yaatu la lu bëri yërmande la am na tegtal loo xam ne dañ koy jëlee ci alxuraan yàlla moo ko waxal boppam mu leer nàññi su leerut nga xam ne taqalewuñ ko ko na ñëw taqale ko su ko yàlla tënkee sunna na teq teqee ko ba mu leer noonu moo daan am waaye si usul saxal nañ ne tam boroom xam-xam yi bu charte ya dajee ñu koy tudde al ijmaa suñ dajee ci dara waxandoo ko loolu ci turu yàlla lañ koy wax ak ci turu yonente bi sallallahu alayhi loola day sax ci diine ñentel bi daganal nañ xiyas moy ñu nat li amone ci li am tay di ci genn ay atte bu ko ñiko wara def defé bu boba tam lolu dañ ci mëna def def lay ci diine lolu motax tektal yi ci sharia yi nga xamné ne kenn du ci wuté dafa toftalo ci téré yàlla bi alquran sunna ijmaa alxiyaas loolu mooy li ñuy tuddé al adillatu al muttafaqu alayha ñëpp d'accord nañ ci amna yenen tektal yo xamné nak dégg nga ay masaalih mursala la ak yooyu yooyu ay adil la al muxtalaf ay intérêt la yu bees yoo xam ne boroom xam-xam yi wuute nañ ci loolu tam lu yaatu la kenn ku ci nekk bu amee fu mu sukkandiku fu wér da koy mën def lii jëm ci jël xaalis def ko muurum koor kon daganal nañ ko ci téere fiq yi fi mu nekk nii ñu ne nag li ci gën mooy nga jox ko woy ñàkk yi nga xam ne ñoo la gën a jege loolu moo ci gën ndax boo leen jéggantoo am na sax boroom xam-xam yoo xam ne tere nañ jéggantu bi dend ak koo xam ne faqiir la nga tëb ko jox keneen waaye itam àdduna nu mu bindoo daanu du daj suuf kenn du mënandoo lépp moo tax boroom xam-xam yi itam daganal nañ ne nit ki mën na cee jokkaale mbokk mën ngaa jox koo xam ne xarib la mbokk la mu jege waaye nag yayoo na ko nga jël ko jox ko ndax loolu dana def ñaar dana def azaka ji ba bare dana doxaale ak mbokk te yàlla sunu borom dox mbokk dafa am lu mu ci diggee bu ko defee day doon wenn xeer woo xam ne day jam ñaari picc waaye li am solo daal mooy eh, nañ ci xalaat ñi nga xam ne eh, way ñàkk lañ rawatina ci waxtu nattu wi nga xam ne dañ cee nekk maa ngi ko waxoon léegi bi may wax azaka yi alal yi nga xam ne day mat at bokkut ak azaka ji may wax nii ñaari xeetu azaka lañ si lislaam lépp ay jumtukaay la yoo xam ne day dimbali nit natu nak mom bu amé yàlla sunu borom dafa ne si wala nabluwannakum bi shay'in min khawf wal ju' khif natu la min khawf wal ju' ragal natu la ju' natu la moy khif wa naqsim min al amwal ñi di liggéey seen xaalis matatul natu la wal anfus leg leg sax nit yàlla jël bakkan natu la dañ koy dégg lu bari ci ci li xew fan yi wa samarat leg leg nit ki gantax gum yaakaaroon du mat waye nak yalla lim mu aya bi moy wa bashiri sabirin na nga begal ñi nga xamne natt duñ ko xarab waye dañ koy muñ ndax julit dafa wara muñ lu xew nga ciow ba geex wax ci lo warta wax man nga ci am daanu sunu borom waye nak sañ nga muñ te jël say way lol moy wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu na ngeen rafetal ñu bari si mufassirun ñi firi alquran dañ ne ihsan ci lolu moy sukkandiku ci li xew buñ jëlé matuway nga jël matuway du tere nak nga dékk say loxo yàlla wakilu ci mom ndax mo wara jitu ndax yàlla mo saxal ni yi yëpp bu xewé mako def natula wala nabulu wannakum bi shay'in min wal ju' wa naqsin min al amwali wal anfus wa bashir sabirin idha asabat-hum musibatun khalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Sénégal lu bari sax njàngale la ba tey bu ñu déggee ñu ne leen diw nekkatu fi dañ ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla nee na mbas mi war nañ ko cee wax yooyu yëpp bu nit ki ragalee bu mbay mi ñorul lim doon am amatu ko nay dellu ci baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla nee na ñii sukkandiku foofu ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun yërmande dina wàcc ci seen kaw ba pare ñooñu jubal naa leen ñooñu ñooy ñu jub ñi loolu yëpp ay xeetu njàngale la yoo xam ne mën nañ koo jariñoo ci e, fan yii nii dugal ko ci biir ndimbalante bi nga xam ne dañ koy dimbalante ndax dimbalante tam léeg-léeg du doon xaalis rek solidarité ni mu gën a yaatoo léeg-léeg mu doon expérience léeg-léeg mu doon xam-xam léeg-léeg nga gis luy gaañ nit ki sax nga téye loxoom ne ko bul jaar foofu jaaral nii loolu lépp ci biir dimbalante la waaye dañoo wax tey zakat muy joxe mu doog doon ci ci biir dimbalante lu am solo waaye dimbalante yemul sax ci joxe alal kese bépp bunt boo xam ne mën nga faa jariñ lu lu nit sa moroomu doomu aadama loolu dugg na ci kaadaru dimbalante loolu takaaful ijtimaai la nit da koy defal nit mbooloo di ko defal mbooloo képp ko tane kenn defal ko ko ci lu mu xam wala lu mu am wala lu mu ko tanee lu mu mën a doon loolu moo tax lislaam doo doon gi mu doon diine yërmande moo tax sax mu nangu nit ñi di wuute léeg-léeg ndax ixtilaaful ulama raxma wuute boroom xam-xam yi yërmande kese la ndax jullit ñi yàlla da leen a boole lu rëy loo xam ne mënuñu ko seddoo ñoom da leen a boole lu rëy ci pas-pas ci julli ci azaka ji ak woor ak aji màkka lim la war a fàttali mooy diine ji diiney bennoo la du diiney tàqalikoo loolu dafa war a sax ci ñu bëree bari ñu xam ko du diine farfarloo du diine dara nekk ci li nga war a nekk la sellal soxol xol yéene ñépp jàmm di def lu baax koo mën a laaya biire dimbali ko nga woo ko mu ànd ak yow ci loolu bu dëgëree bopp sax walla mu bañ yàlla bëggul nga jëfandikoo ak moom li ñuy tuddee lu metti onf defal ndànk rek ba mu nangoo ñëw ànd ak yow ndax yonente bi sallallahu alayhi sallam yàlla loolu la ko wax daf ne ko gis nga boo naqari woon deret sax nit ñi la topp du ñëw walaw kunta fadzan xaliz alqalb lam faddu min xawlik fa bima rahmatin min allahi linta lahum soo naqari woon deret doo mën a jëflanteek nit ñi doo leen woo boo blessé woon seen ay sentiment doo bari mbooloo waaye lan moo tax nga bari mbooloo ndax yow da ngaa nooy yërmande yàlla nga yor kon jullit ñi loolu lañu ñu war a bàyyi xel ñi ñi yaakaar topp leen ñooñu ci loolu la ñu ne loolu lu am solo la ndax leneen loo jàpp mën naa indi juuyoo nga defe ne ci biir mbaax nga koy def ak lislaam fekk ci beneen bunt nga koy defee te doomu aadama bi boo gisee sëñ Tuubaa si lu bari day insisté nag ci baatu al amalu bil maalum mooy nit ki di jëf te buy jëf mu jëf lam xam lam xam tamit bu ko xamee ba xam ko mu bañ koo teg di ko jëfee ndax li ñuy wax nii ñu bëri dañ koy jàng waaye bu ñu génnee dañuy dox weneen doxalin lislaam du affaire farforloo affaire kenn ku ci nekk taal bërëb jubal aw nit ñooñu yàlla moo leen moom yàllu la nit ñi alalu sunu borom lañ koo ci mën a rawale rek moo gën àdduna ak li ci biiram ñoom si nit ñu baax ñi si loolu la ñu nekk kenn ku ci nekk di def dara ci la nga man kemtu lay kàttan kenn ku ci nekk nag ak la la yàlla may ci dayoo dégg nga ak lim la may ci ngëneel nga xam ne kooku mbiru sunu borom la yàlla moo ko xam moom rek moo ko mën a àtte waaye yow li lay jariñ mooy topp gi nga ko topp moom dégg nga waaye moom fa mu toll fa mu toll du doon sa mbir yow yow sa mbir mooy lan topp gi nga koy topp lim la wax nga koy def tënku si te jub te bàyyi werante ak wax ju bari ndax jamono yi beru la sax yàlla wax na fi mu ne nii léeg-léeg euh, doo mën ci nit ñi dara waaye yàlla nee na loolu du la lor dégg nga laa yadurukum man dalla iza htadaytum boo boo tegee ci yoon jéema la teg nit ñi ci yoon suñ dëgëree bopp bul xeex bul werante bul def dara na nga waxte li ngay wax nga xam ko te mu wóor mu am cëslaay ci diine loolu moo am solo bu ko defee loolu ay xeetu laaya biira la yoo xam ne dañ ko toftaloon ci wàllu azaka bi dugal ko ci buntu solidarité ba tey ndax solidarité du alal kese waaye mën naa nekk dimbali nit ci loo man rek bu ko defee nañu fonk ñaan yi jël matuwaay yi ñu yi nga xam ne moom lañu ñu wax di muslu ci seytaane eh, auzu billahi mina sheytaani rajim baat yu baax la ñu bëri dañ koy xeeb ndax liñ ko yab te dañ ko di ko wax baax na ndax léeg-léeg mbindeef yi doon seytaane auzu bi kalimaati llahi taammaati min charri ma xalaq di ko wax ñetti yoon suba ngoon loolu lu baax la bismillahi allazi la yadurru ma ismihi cheyun fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim yooyu jege na nit ñi war nañ koy mën a wax dégg nga di ko dimbalante si sunu biir di jàng lixlaas fallaqi naasi fatiha di ci jublu loolu ngir mucc ñit ñi ci des tam tam mucc ñu yéenante jàmm waaye bu benn jullit wax ne kii lam def baaxul kii lim def baax na kii tegewul ci yoon kii tege na ci loon loolu amul benn solo yow li ngay def moo am solo li ngay def ak fi nga nekk moo am solo kon ñu ngi may junj ne waxtu yi jeex na ñu tëj ko ci bismillahi rahmaani rahim allahu xayun samadun wa baaqi subhanahu zu kanafin wa waaq ونحن في كنفه المنيع من كل شر وأذى شنيع مستمسكين بالغياس أحمد خير الأنام منتهى ومبتدى من خالها في زمن الوباء أمنه الله من البلاء أمن الله الخائل والسامع والناس أجمعين شكرا الله أشهد الله إله إلا الله أشهد الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى ومن اهتدى بهديهم واختفى أثارهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة اليوم نتحدث عن زكاة الفطر وهي من نعم هذا الشهر المبارك وخصوصياته وبرحمته سبحانه أوجب علينا زكاة الفطر طهرة للسائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه من اللغو والرفث ولتكون عونا للفقراء والمعوسين وتجب زكاة الفطر على كل صغير أو كبير سكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين ساعة من كل ساعة من كل نفس ويخرجها المسلم الحر المالك لمقدار ساعة يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلا وتلزمها عن نفسه وعن من أو عن من تجب عليه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر تهرة للسائم من اللغو والرفث وتحمة للمساكين وقت وجوبها وآخر رمضان واختلفوا في تعديل الوقت الذي يجب فيها فمنهم من قال إن وقت وجوبها خروج الشمس ليلة الفطر لأن وقت الفطر من رمضان ومنهم من قال إن إن وقت بدء وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد وفائدة الاختلاف المولود قبل الفجر من يوم العيد أو المولود بعد مقيم الشمس من ليلة الفطر هل تجب عليهما زكاة الفطر أم لا؟ فعلى القول الأول لا تجب عليهما لأنهما ولدا بعد وقت الوجوب وعلى القول الثاني تجب عليهما وعلى والديهما إخراجها إخراجها لهما لأنهما ولدا قبل وقت وقت الوجوب ويجب إخراجها قبل الصلاة لأن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي سكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولا تسقط بعد الوجوب بتأخير بل تجب بل تسير دينا في ذمة من لسمته حتى تؤدى ولو في آخر العمر أيها الإخوة من نعم الله سبحانه وتعالى أن جوز لنا إخراج سكاة الفطر قبل وقت قبل بدء وقت الوجوب بيوم أو يومين قال ابن عمر رضي الله عنهما ابرنا رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال النافع وكان رسول الله وكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤديها قبل ذلك باليوم أو اليومين أيها الإخوة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرغب في صيام ستة أيام من سوال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال man saama ramadaana suma atbaahu sittan min sawal fakk annama saama dahar rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana waj'alna min alladhina an'amta alayhim min an-nabiyyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ginaaw bu ñu sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu Alaihi Wasallam di talal suñu loxo ci waxtu bu tedd wi nga xam ci lañ nek muy fan yu mujj yi nga xam moy mooy fan yu mujj ci wéru koor ak bis bu tedd bi nga xam moy moy ngeen ji bis yi ñu ñaan ci suñu borom mi nga xamne moy borom katan te moy borom man li nga xamne mo jaaxal doomu adama yépp te mom kep mo ci man dara yalla nañ ko seppil ci aduna sepp bam bam jeex fi tak muccil ci ñi nga xamne itam da jot na dal bañ ñu wër di di ko dellu di ko tàllalaat suñu loxo di ñaan suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom ak man suñu Cheikh Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba te di taxaw tey taxawee diine ji suñu borom gën koo kattanal gën koo dëgëral gën koo may ak wér ak ak tal ba li nga xam ne moom la mooy yéeneem te kenn ku ne xam na ne yéeneem rëy na lool ci lislaam li yéeneem nag yàlla ko suñu borom defal ba defal ko ci lu kawe njortam ñun ñi nga xam ne ñoo ko ànd ak moom itam suñu borom boole ñu ci pay googee nga xam ne moom la ko war a fayee di defal ko itam képp ku dib jullit te lislaam tax laa jóg yàlla na leen suñ borom sàmm yàlla na suñ borom taxaw ba li nga xam ne yéene nga koo def ci lislaam nga def ko ci def yi nu ko jot tey jii nag liñ bëra waxtaane yaakaar naa waxtaan la woo xam ne dégg nañ ko ba tàyyi waaye téewul nag comme dañoo toll ci waxtoom faaw ñu waxtaane ko loola mooy asakay murum koor asakay murum koor dafa doon loo xam ne bokk na ci jagle yi nga xam ne moom la suñ borom def ci weeru koor ndax xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ne laysa siyaamu minal akli wa surb innama al aklu innama siyaamu min al laxwi wa rafas fa in saabaka ahadun aw jahila aleyka fa qul inni inni imruun saaimun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne koor de mooy ña du nekkul ne rek mooy ñàkk lekk ñàkk naan waaye koor day mi ngi ci doo wax waxi caaxaan doo ko def doo kenn tam du la da nga da nga góorgóorlu ànd ak sa muñ ba kenn du la yëngal loola mooy koor loola nag kon bu bu fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi dañoo xamal ne koor du ñàkk lekk du ñàkk du naan kese waaye mi ngi ci doo def lu doo defi caaxaan doo ko wax kon caaxaan yooyu dafa mel ni lu rëy la ci def ko kon ci ci koor lu ci rëy la kon nag bu suñ borom ci ci ci baaxam ak yërmandeem ak bëgg a fay doomu aadama yi ci koor ndax lim lim xam le ne moom képp moo moom koor te moo koy fay te bëgg na bu ñu koy fay mu mat sëkk loola tax na nag mu waraat farataat ci ñun asakay muurum koor ba loolee nga xam ne mooy li yonante bi sallallahu wax ne koor liko koy tax li tax mu doon koor dëgg-dëgg mooy doo waxi caaxaan doo ko def kon caaxaan yooyee ak nga xam ne ak wax yooyee nga xam ne mooy waxi caaxaan yi ñuy def te mën naa bañ a nekk suñu tayeef waaye matadik doomu aadama rek duñ ci yóbbu yonent bi suñ borom nag def na defal nu asakay muurum koor ngir caaxaan yi wax yooyee ak jëfi caaxaan yooyee suñ borom di ko teggil di ko faral ci biir koor gi kon loolu mu mel ni na ci xéewal yi nga xam ne suñ boroom moo nu ko defal ci biir koor muy xéewal yoo xam ne bëgg na rek suy fay koor mu mat sëkk ba ñépp boo koy jot ko ci nga jot ko ci jotinu kawe sa njot loola nag kon xéewal bu farataalee ci ñun muru muurum koor ngir mu def loolu kon dafa mel ni xéewal la goo xam ne gu ñu suñ borom defal ngir bëgg rek bu ñuy fay koor mu doon lu mat sëkk kon asakay muurum koor moomu nag képp kuy jullit rek moo xam góor ga moo xam jigéen nga moo xam mag nga moo xam ndaw nga dalaa war waaye xam nañ ne ndaw day amul lu mu war a mën a génnee kon am na koo xam ne moo ko war a génnee génneel ki nga xam ne mooy ki mu war mooy bépp jullit rek boo xam ne am nga loo xam ne man na sa dépense tey ci añ ak nga desal nag loo bi nga amee loolu ba noppi nga desal loo xam ne mën nga caa génne asakay muurum koor kon bu ko defee nag loola moo lay daal di war kon nga war a génne asakay muurum koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu Ibnu Abbas nettali dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo asa mo wax ne mo faratal ci ñun ñu genné asakay murum koor neena na genné goge nak limi def limi def ci ñun moy tiaxani wax ya ak jëfi wax ya nga xamne mom lañ doon def mo mu mu tegg ko ci koor gi ba koor ga sel na mu wara sel de def ko da ko def itam ak ba li nga ba ñi nga xamne ñoo ñi nga xamne mënuñ seen bop bisub korite ba yalla jox leen ñu am katan go xamne danañ ci mëna bokk ak julit ñepp ak feetu te duñ ci ànd ak ak jaaxle xel duñ ci ak ànd ak itam ak jaaxle goo xam ne mooy lii nan lañuy def ba taxaw ba man mën cee suñu njaboot ni ko ji ni ko doomu aadama yépp di defee léegi nag ñuy laaj ba xam ban waxtu la ah, génne asakay muurum koor di war léegi nag loo loolu ñi ñëpp xam nañ ni ci ci buñ ko dee tënk moo di ne bu koor gi di jeex ci lay war waaye nag ci ban waxtu lay ware loolu am na ay wuute yu ci am ñenn ñi wax ne buñ xasee dog koor te wóor nu te xam ne suba la ñuy wori rek kon bu dogee koor gi bu jant bi soowee bañ dog koor gi te xam ne suba la ñuy wori rek foofu nag ah, war gi di am di ñenn gi wax ne déedéet kon na mi ngi tàmbali ci bisub bis bi nga xam ne mooy bisub korite bi te bisub korite gi mi ngi tàmbali ci bu jant bi maanaam bu bu jotee kon ñenn ñi loolu la ñu wax ñii dañoo wax ne bu koor gi jeexee rek lay lay war lay daal di tàmbalee war ñenn ñi wax ne déedéet mi ngi war ci bi nga xamee ne dugg nañ ci bisub korite bi loolu nag li ko li tax ñu wax ko mooy day day day am loo xam ne mën naa xew te loolee di xew kon kam xew ci moom nan lañuy def jëflanteek moom mooy mën naa am koo xam ne benn nit koo xam ne mi ngi juddu ginnaaw bi nga xamee ne jant bi sona ci weeru koor am koo xam ne itam mën naa juddu ginnaaw bi nga xamee ne fajar njëkk ñuy fajar di jot ci weeru koor ki nga xam ne dafa juddu ginnaaw bi nga xamee ne maanaam jant bi sona ci weeru koor ci bisu ko bi ne suba lay koorite gi wala mu juddu gi njëkk fajar njëkk maanaam bu juddu njëkk fajar ndax moom itam ndax kooku danañ ko war a génneel asakay muurum koor wala dañ ko ko war a génneel ñu ne ki nga xam ne bu dee ci ñi nga xam ne dañoo wax ne bu jant bi xasee soo rek la kon ki nga xam ne ginnaaw bi jant bi sooy la juddu kon ñooña moom waxuñ ne asaka war na ko waaye bu asakay muurum koor wareesu ko ko génneel ñi nga xam ne nag dañoo wax ne bu fajar jotee la la asakay muurum koor di war gi te tàmbali kon ñooñu kon ñaar ñooñu nga xam ne dañoo juddu njëkk fajar wala ñu judd ginnaaw bi nga xamee ni jant bi sona du tee kon asaka murum kon dañ leen ko war a génneel seeni waay jur moo leen koy génneel ndax bi waxtu bi bi ñuy war fekk na ñu nekk ci kaw suuf kon war nañ leen koo génneel léegi nag asakay murum koor moomu dafa am waxtu boo xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn wax ne ci lañ ko war génne ndax buñ ko defee ko def ci defin wi nga xam ne moom la suñ borom bëgg ñu defe ko ko loola nag mooy ñu génne ko njëkk ñu julli julli korite gi koo xam ne nag génne danga koo génne ginnaaw bi nga xamee ne julli korite gi def nañ ko ba noppi nee na déedéet ñàkku aw yiw de waaye da ngay xam danga nga jàppe ne la nga génne sarax la te kenn ku ne sarax itam xam na ne suñ borom dana ci fay lu rëy waaye boo ko génnee njëkk ngay julli moom li suñ borom bëgg ci lim lim digle ci walla lim nu bëggal ci la yi wax yooyee ak ak jëfi caaxaan yooye ci ñu sellal ñu sellal ko ci koor gi kon danañ ko amee noona waye bu fekke na nak ginnaw buñ jullee ba nopi lañ ko génne loola da fay melni saraxé na rek buñ joxé waye joxé wuñ ko niñ ko bëgg niko suñu borom bëgg ginnaw bi yitam ñuy laaj ndax asakay muru ko ko xane ne na la war nga saggan ba defo ko ci waxtu wi nga xane ne nga ko wara a ndax day limi kon day mel ni asakay muurum koor mu wacc na la dedet bu la xasse war mom dootu la wàcc doonte di fek ya ngi dundu rek nga xamne war na la dang ko wara a kon lolu moy li nga xamne moy ñu war ci asakay muurum koor ginaaw bi itam ñu xam ne ngir suñ borom def ak jàpp ndal ci jullit bi ndax xam nañ ne faja maanaam bisub korité bi mën am ay xat-xat yoo xam ne dana tax ba ni mu bëgg a génnee asakay muurum koor da ko ko mën a ndax sañ na ko génne bisub korité bi loolu itam am nañ ci loo xam ne lislaam jàngal nañu ko ci moo di ne ibnu omar dafa wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa daa wax ne nañuy génne asakay muuru kor njëkk ñuy jóg di jëm ca jullikaay ba nga xam ne moom la ñuy jullee koor moom la ñuy jullee korite naafia nag te nett li wax ne ibnu omar moom mu nga xam ne moo wax ne yonante bi sa alayhi wasallam dafa wax ne nañuy génne asakay muurum koor njëkk ñuy génn jëm ca jëm ca jullikaay ba moom de daana génne ñaari fan wala benn fan njëkk bisub korite bi kon mu mel loolu jàpp ndal la ci ñi nga xam ne bésub korité bi mën nañoo am ay xat-xat ba duñ ko mën a génne ci bis bi ñu mën koo génne njëkk korité gi ci benn fan wala ba ci ñaari fan ñu xam ne itam am na loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ci daana ci soññee loolal lool ngir bëgg rek aw yiw aw ak ak xéewal yéene ko ñi nga xam ne ñooy xeetam wi moo di ne daana soññe ci ñuy woor juróom benn fan gi ci weeru koor ci ci weeru korité wi buñ ginnaaw bi nga xamee ne koor gi jeex na nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ni loolu ku koy def dafa mel ni yaa ngi woor sa àdduna sépp loolu nag da li muy tekki mooy dafa mel ni yonent bi comme suñu borom dafa wax ne man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha képp koo xam ne def nga benn yiw fukk la lay fay kon dafa mel ni bu ñu wooree weeru koor dafay mel ni woor nañ fukki weer kon mu des ñaari weer ñaari weer yooyu nag bu ñu wooree juróom benn fan yooyu dafay daal di mel ni kon woor nañu at mépp ba mu jeex loolu kon mooy li nga xam ne moom lañ war a gën a góor góorloo ci fas yéene ba lépp loo xam ne mooy jéem a mooy matal suñu jaamu yàlla di ñu dimbale ci ñu taxawee di nga xam ne moom lañ war a taxawee ñu ñu sant ci suñu bo ñu ja ñu gën di ci góorgóorlu te di ko def ndax ne suñu borom xéewal rek la ñu bëggal yërmande rek moom la ñu moom la ñu yéene comme moom mu nga xam ne nag moom lu baax rek la ñu bëggal yërmande rek képp itam la ñu yéene nañ fexe ba yéene joojee mu am ci ñun buñ ko bu mu nu ko gën a bëgg xam nañ ne sax mënuñu de gën a bëgganteeg suñ borom waaye ñu def suñ kemtalaay kattan rek di nga xam ne moom la li ñu bëgg yonent bi di nga xam ne moom la suñ borom bëggal ñu def ci suñ kemtalaay kattan ci def ko loolu kon mooy li nga xam ne moom lañ doon waxtaane tey ñu ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan tey mooy borom man xam nañ ne day doomu adama matut dañoo doyadi te doyadi gi yàlla moo nu ko bindaale waxul xal insaanu daifa lay suñ borom wax kon doyati gi nga xam ne moom lañ suñ borom bindee te moom mi nga xam ne moo mën a matal ay jëf yàlla nañu dimbale ba lépp loo xam ne def nañ ko ci weeru koor wi ci ak matadi wala ak ñàkk tegu ci fi ñu war a tege mu dimbaleel nu boppam ba teg nañu fi ñu war a tege dimbaleel nu boppam ba la matadi mu mu mottalil nu ko dimbaleel nu boppam bu bokk bañ bokk ci ñi nga xam ne ñi moom lay mbaa yàlla ci biir koor gi ndax xam nañ ne fukki fan yu mujj yi waxtu waxtu la woo xam ne suñ borom da koo def mu doon loo xam ne da ciy mbaa yàlla ay doomi aadama kon doomi aadama yooyu nga xam ne ñoom la ciy mbaa yàlla muy jullit yi yàlla nañu suñu nga xam ne ñoom lay mbaa yàlla loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañu ko defal rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab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 والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأسخى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلى ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 asalaamaaleykum. asalaam.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 خيرات ربي نحتني لجنان به والله صفى لي الأرزاق والبلدا فاست حياتي بكون الله لي أبدا حمى عيالي وساند جسم والخلدا بسم الله الرحمن الرحيم يا رب المصطفى المختار من مدرس فيه أمته في البدو والحضر عليه صلي بتسليم بلا عدد في الآل وصعب وأحسمنا من الضرر حد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واحسمهم من الشرر واصرف لخيرهم الشيطان في أبد وتكفيهم كل من يسطو من البصر والتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبصر والتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبصر والتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبصر وجل قلوب ذوي الإسلام في أمن والتكفيم كل ما يفدي إلى الغرر وجل قلوب ذوي الإسلام في أمن والتكفيم كل ما يفدي إلى الغرر وجل قلوب ذوي الإسلام في أمن والتكفيم كل ما يفدي إلى الغرر وسلد من بتسليم عليه بمن له تمول تجد بالصف والدرر بسم الله الرحمن الرحيم يا قوة الكريم يا حفيظ وجه إلى خير إيالي الخليص إلى سوى حسبي وجه الوباء يا من أن دائما لي وهبا لوجه الكريم لا توجه لي دررا ولي مناي وجه أتت أن يؤيبي ما يا من مناي لي بأمن جماعة يقيه يا لي الوباء الله قطعا ولا إله إلا الله يقيه يا لي الوباء الله قطعا ولا إله إلا الله يقيه يا لي الوباء الله قطعا ولا إله إلا الله